Tektal TV ah sëñ Fall ñaan nee na damay yëkkatiku ca kaw ci kanam ay milliards lañ bëgg di doon taalibe Serigne Touba yoo xam na que ne màggal Touba kenn du duñu ci man Kër Matar Diop kenn duñu ci man ñuy def lu baax di jariñu di jariñe bañ a lor kenn man nag bëgguma nag di am di maye mais damaa bëgg lépp lu ma wër rek ñu ànd am ñuy defal ñeneen yàlla nu yàlla defal lool bu baax a baax a baax a baax sutura bu sax dàkk sëñ Fall ñaan léegi jigéen buy euh, jigéen boo xam ne dafa bëgg sëy nag mu tëg ko xeetu Evenberg yi am na ñoo xam am nañ xaalis am nañ oto am nañ liggéey am lépp mais borom kër a leen të ku bëgg loolu loo ko mën a. waaw boo ñëwee damay xool lan moo la ko teg. Mhm. lan moo tax loolu am. waaw ma dindi loolu. ci waral loolu. waaw lan moo tax mu am rek laay xool. su ma ko xamee rek ma dindi ko. Mhm. yow la kay dindi moom dindi moom wax dëgg yàlla. Ah, macha allah dindi dindi moom. Mhm. macha allah. macha allah ah, kon yow même ku liggéeyoon ba muy bëgg a dee bu ñëwee ñaata fan nga formaté ko ba mu set wicc. ku liggéey ba muy bëgg a dee. waaw nga xam ne maanaam. dan laa liggéey mu leer man dan laa liggéey waaw ba ba nga xam ne danga tëdd waaw ñëwee ma dind ko nga dindi ko bu la neexee sax bul ñëw bu say mbokk mënee ñëw waaw nan ñëw rek def li ma leen wax li ma leen xam nga nit nag mën ngaa wax ne nan ñëw def li ñu ne boo demee day laaj lu bari waaye du bu mënee ñëw ñu def li ma leen wax maam fi ma leen jaarloo ñu jaar ñu jaar waaw du alal seex dafay du bu doon alal waaw xam naa ñu ma xam ñoo xam bu ma neexoon dem toog seen kër ñu may jox alal judul jeex te du ma jóg fi ma ne du alal billaay te ku ñëw bu ku ñëw fekk ma fi ma ne di nga xam ne sonn ma waaw loo àndaale rek boo ñëwee fekk ma loo mën a àndaale rek laa tey gis naa oto waxal lépp nag loo mën a àndaale gis oto bi oto boobu mu dàq bu waykat bi sax loo xam ne si xamal hmm? lan moo tax seex bu bu nit foofu tam nga ma may parenthèse man leeral fa tuuti mhm. sëriñ si am na benn façon communication bu nar a xew léegi d'accord ma yaakaar ak aayaay dafa nekk ci am am léegi jàpp nit ñi bu dóoree mille personnes saa mën ngaa yor ëpp la ñu yor dëgg bu ko defee nga ne donc am naa nangam ak nangam ak nangam ak nangam wane ko nit ñi gis ñu jàpp ne kii man gis na sama man ëpp leel Neymar man résultat laa soxla de nekkuma ci yooyu de salon bu rafet oto bu rafet kër gu rafet résultat rek ak ñu may bañ a kalaame ak yow lii daal buy am may sant di gërëm. foofu tam foofu laa doon duggee quoi comme lii ma hmm. naan oto bu rafet ak. ak yooyu am na sëriñ soo xam ne que tamit seen mën na mirage seen bopp. sax waaw ah, man mi ngi tudd. Saraba Bio Saraba Bio di defar bépp produit. produit waaw ñi yor ay bitik di ko jënd di ko yóbbu seen bépp produit. Hmm. Saraba Bio. waaw hmm. logo bi moo nekk nii ngeen di gis. ñu defal leen ko ci kaw Saraba Bio di def bépp produit da koy defal te loolu moom hmm. laa jàng ji woon Nigeria jàng fa yenn xam-xam yi doog a ñëw yenn yi ay Mali laa koy jëlee hmm. yi ci des maanaam ci àll bi daal laa ko génnee lépp lépp di ko defar ñëw ci dëkk bi dëkk bi am garab yu baax ndax ba may sàmm hmm. boo nekkee fii di ñaan wala ngay faj dangay fone garab suñ réew mi amul ay garab te suñ garab yi moo gën a baax garab yooyu mën a gis yoo mën a gis ci àddina waaw waaw kon ngeen bàyyi ko xel bu baax a baax Saraba bio nekk fan ci aslem waaw ci aslem ci numéro yi mën nga leen ci jote waaw te boo gisee may def yërëm loolu dama ci insisté mm-hmm. maa boo gisee may def yërmande waaw taxul dara taxut mënumaa jàng mu métier mm-hmm. fukki at ak ñaar di ci am lépp ci biir métier mi mosumaa mm-hmm. tooñ kenn maa yàqal kenn doon am taraanga loolu laay téyewaat ba keroog may dee waaye du ma du ma du ma toroxal kenn duma lekk alalu kenn billaahi wallaahi kon saraba bio daal mën nga ne am na produit yoo xam ku ku ponkal bëgg a jeex ku bëgg a jeex ak ku tuuti ak ku bëgg a rëy ku bëgg karaw ba mel ne yow yàlla amal ñàkkal karaw nu mu mën a doone bi gis ngeen bagage yaa ngi bi sax mm. maanaam euh, bi waaw sama soxna laa ko xam nga moom dama ko yóbboon France mu jàngi dama ko yóbboon France mu jàngi mu jàngi mm. na moom laa mm. ko jox entreprise bi moom laa ko jox moo koy ba pare ba pare nee naa ko mu wàññi produit yi lépp mu wàññeeku nit ñi di ko mën a am nit di ko mën a am waaw ah macha allah yàlla na gën a barkeel bu baax a baax kon ndax euh, ndax loolu dong nga ñu war mënuñoo nekk ci réew mi lépp di seer di jóge ci yeneen réew yi mhm. te ñun ñu am ko ci suñu réew mi léegi borom biir bu nag ko jeexal tamit lépp am na ci kii waaw luy wàññi biir comme docteur Wade Pape Alé Samb ñoom seen biir yi ni toll nii mooy vente plat bi bu may su may damay joxe waat numéro bitig bi direct foofu jeex direct foofu jeex na kon euh, sëñ Fallou Niane léegi nag ñu ñëw ci wàllum rab bi nga doon wax sànq rab noo koy fajee noo koy dindee rab moom nu mu la parce yëpp nañu rab trop. waaw nu mu la a dale. waaw ndax bëgguma mooy booy joxee téléphone yi damay bëgg di waxaale sax loolu. waaw bëgguma nit di ñëw rek tëb tëb di ma di ñëw sama kër. di ñëw sa mooy xam boo ma doon indi ay million boo boo ñëwee sama kër loolu neexuma bëgguma. neexul ah, samay affaire bëgg ko. bëgg ko bëgguma nga nit ñëw rek tëb tëb ñëw sama kër. na am digal la waaw. Mm. suy ñëw. waaw ma woo ma jox ko rendez ndax daa am loo xam si dama ko wax ak ay kilifa yoo xam dama nekk ñoom mm-hmm. muy accord boo xam ne ñoom ñoo xam dama doon liggéey ak ñoom ci wàllu ñaan yaa ngi dégg mm-hmm. waaw ñoo xam ne ci ci mi la nekk te dama cee bari ay ñoo xam ne dama leen di liggéeyal te bëgguma ñuy ñëw di fekkanteeg ñeneen ñi foofu xam naa li nga wax baaxul mm-hmm. xaalis neex na waaye nag ñu jaarale ko ci yoon daal jaarale ko ba pare sama yëf bëggul lool man sama yëf moo bëggul surku surku su bari du ma dem ci estade du ma dem ci estade du ma dem ci yenn mbooloo yu yu rëy jeex na numéro yaa ngi noonu ci écran bi kon ngeen bàyyi ko xel bu baax a baax ci côté EMG bi la nekk euh, sëñ Fallou Niang sëñ Fallou Niang léegi nag nga ne rab yi moom ku fa ñëw ñaata fan mu deñ rab yi moom du ma ne fan mu deñ hmm. waaye daal boo ñëwee ma wax la li ma lay def ma wax hmm. la li ma lay wax waaw ah ñu hmm. doxal waaw bu la neexee sax bul ñëw na say mbokk ñëw na say mbokk ñëw waaw la ma leen yónni wax loo ñu def ko ci àlla ba bu ñu ko defee ba ñëw nga jóg nga oyof mel ne dara musulaa dal tooñee ma jox lay sangat rab moom dootu la jege su la neexeet ma dugg ak yow ci drapeau yi rek ñu xool ban drapeau la lay simple maanaam sang njaboot yow mm-hmm. ba ci sang njaboot rab dootu la topp te da nga ubbeeku macha allah ci wàllum bac BFM concours gendarme loolu yëpp xëccoo la yooyu yooyu moom moom laa gën a man yooyu nga gën a naa noonu yëpp mm-hmm. kooy sax mm-hmm. te sa yaay amul dara wala sa baay ñëwal man ma nekk sa baay ma jox la nga dem waaw ma jël ñaani jox la nga dem nga jox li may wax duy caaxaan de. bu mu war de te ku ñëw sama kër di nga xam ne li waxantuuma. waxantuuma non non waxantuuma. jaana kon fi nekk ne comme Sénégal bu ko neexoon mu dem xëccoo ji FIFA bu dee am na njàng meeg ci. Sénégal ab sénégalais boo xam ne amoon na njàng mi comme Augustin Senghor a xëccoo FIFA. pour jot ci. Hmm. bu lu dénkee boppam mën nga ah, waaw. Hmm. xëccoo kay déggoo xëccoo kay lu mu mën a doon. Hmm. waaw lu mu mën a doon xëccoo kay lu mu mën wax. mën naa ko ndax xam naa li koy def xam naa bu dee buñ koy def fi ñuy jaar fi ñuy jaar xam nga ngay dem Touba mm-hmm. Mm-hmm. man su ma dee dem Touba mm-hmm. xam naa yoonu Touba kan laa koy laaj waaw ah xam nga yoonu Touba fa laa def dëkk su ma fa doon dem tey ji du ma ko laaj kenn doo ko laaj kenn waaw su ma neexee sax wut samay jàdd jàdd boo xam ne kenn bu ma neexee jaar ji Kébémer génn Touba ñëw Touba su ma neexee jaar fi bu ma neexee jaar bu ma neexee yëpp waaw su ma neexee jël yoonu suuf waaye da waaye Touba moom dinaa la fa yóbbu Touba di nga ko fa yóbbu yow daal di nga am ndam rek jërëjëf Petit Sow mooy déconné foofu ak Baye Massamba Diop moom mi ngi koy seetaan Baye Mass deful dara Petit lay déconné docteur a ngi koy yedd sax léegi nag euh, sëñ fa Niang léegi nag wàllum mi-temps tegtal ngóor nag noo def moom góor buy gaaw yegg ku dara te yow gis nga ne ngóor a ko sëriñ si yombale yombiwul noonu ba léegi clients yi ñi ngi koy continuer di laajaat fan lañ ci jëm loolu joxe ci assurance bu leer waaw ngóor a moom waaw euh, te yow ne da nga yokk awra moom paayi paayi laa ci gën mag ñi daal mag ñi waaw ñu rafetal waa ñoo la ci gën a suñu bàyyi waaw nga xam ne moom danoo sonn waaw te dañuy am jaaxle ci seeni soxna waaw ñooñu laa ci gën a yërëm ñoom nga ci gën a yërëm waaw ndax jamono ji dafa yàqu te góor moom moo yor kër moo yor kër waaw soo ñëwee mm-hmm. dinaa la ci jàppale su fekkee nag da nga nekk mag moom leer na la moom ah. yor nga feebar yoo xam ne si mënoo koo faj te sa ngóor kii na dañ na mm-hmm. boo ñëwee ma jox la loo xam ne si sa kër moom yaa koy téye moom kay paay paay jël leen numéro bi ngi noonu soo waxee dara gone gu ko weddi su génnee dina xam ne tooñ na baayam tooñ na baayam waaw te boo ñëwee boo yurut boo ñëwal waaw kon ngeen dégg paa bi paa bu man di doon fii yaa ngi am aas boo man di am te doylu ci wàllum sëy te nee na garab yu leer yu wóor yu àndul yu raxul dara la lay jàppale nga am ci ndam hmm. léegi nag ku bëgg traitement nag ay gaaw a yegg yooyu yëpp wàcc ko carrément mu seeti la yooyu yooyu Cheikh loolu du dara ci man wax dëgg yàlla du dara ci produit garab lu ma ci bëgg a def dama koy def garab daal da nga ko man dama xam garab te da nga bu ñuul dama xam garab suuruur ak njigéey sa ngéejaan ak dibu tan euh. see nga dibu tan kilifa gi ma la doon wax léegi nii bu ma koy liggéeyal ci dibu tan laa ko liggéeyal dibu tan wut bay rendi ko ajal ko ko ci dibu tan see nga débutant kenn du ko yéeg amul nit du ko yéeg rab du a xam nañ ko waxal ñu la ko nga génne ko nga montage ko bu la neexee du ko yéeg yaa ngi dégg fas ba nekkee daara ja fas yi bu daan jur mm-hmm. seen njurit yooyu foofu lañ koy wéeg pour pour dara bañ koo laal fa lay ne ba wow ba ba yàqu dara du ko lekk hmm? ndax dara du ko yéeg loolu laa ko defal moo tax gone gu dof dof lu ba yéeg ci kawam mm-hmm. da ngay mm-hmm. waaw Mm. ku koy ku muy ku koy ku liggéeyloo. waaw mu lay liggéeyloo ba nga bëgg a toog ci kawam wala bëgg koo fontoo. dangay da ngay am problème. maanaam gone moom dootu ko tooñ demal nag fa la neex. Mm. demal ci adduna bi fa la neex. Mm. nga ñëw nga ñëw mënoo koo wàccee mënoo ko tooñ mënoo ko ni ndax dafa téye boppam waxut te mi ngi liggéeyal réew mi. di dimbali ay nit ci suuf ñoo xam si kenn yëgu ko. kenn te nit ñi lu bon rek la ñuy jéem a teg ci kawam te moo gën a baax ci adduna bi Sénégal gi mooy nit ki fi gën. Hmm? ndax mooy dimbali nit ñi ta du wax dara. te du wax dara mooy liggéey ba ñëpp xam ne mi ngi liggéey. Hmm, jeex na kon yàlla booy kat. nga ko gis naa tamit nga demoon Maroc. Hmm. loo fa wuti woon xam-xam wala yoon leen sa xam wala lan la woon. waaw Maroc moom daa lu mu fa doon liggéey rek. dama fa demee maa ngi. daloon roi bi nga yoroon fan nga daloon. non moon ci roi <laughs> maa ngi newoon fële ci nu tudd. Euh, Casa. Casa Casa waaw maa ngi nekkoon ci hôtel bu ñuy wax hôtel Barcelone. hôtel Barcelone doon naa xam naa ñoo fa doon liggéeyal waaye nag doon naa fa dimbali sénégalais yi nga xam ne fekk naa leen fu ñu sonn dafa nekk dëkk boo xam si nag ña fa ne mm. danoo soxla ndimbal mm. te yoruñu dara te ñoom sa sëriñ si buñ leen dee buñ dee woote ñoom du leen wuyu duñ leen jël du leen faale ci seen i mm. ndax xam nañ ne ña fa nekk ñu ci bari yoruñu yoruñu moo tax ñoom boo ma wooyee rek bul ma laaj sax loo loo may jox wax ma li nga soxla li nga ma dindi la waaye nag ku fa mas nekk lekk xaalisu jàmbur nga daw dem fa. waaw wala nga ma sa tooñ. Hmm. da nga ma koy wax. da ma koy wax wax la la wax dëgg. bu ko defee ma wax la ni ngay def. Hmm. loola moom dina dañ. Hmm. nga continuer te bañ a tee tooñ ci àdduna ndax boo tooñee loo defati sa kaw lay dal. li ma lay defal boo loo defati sa kaw lay dal. waaw. Euh, kon Maroc Maroc war naa fa dem sax Maroc laa jënd bi Maroc boo xam ne danoo soxla ndimbal tam mooy mooy mooy mooy réew mi ëpp ci mooy ah. réew mi nga xam ne. da moo ëpp xaalis Afrique. Ah. waaye ña fa nekk mënuñoo am dara ba pare naar yi dañoo am mystique bu bon boo xam ne si. Mm-hmm. ñoo gën a mën a mystique naar yi fa nekk. naar yi fa nekk waaw. kon ngeen dégg ko ku nekk Maroc boo xëy di balaa ngay génn ko ñoo gën mën a te ku fay nekk ña fay nekk dinaa wax benn sarax ñu koy def ñu koy def waa Maroc maanaam waaw sarax sénégalais ya fa ne waaw chaque ajjuma mm-hmm. suñ xëyee na mm-hmm. ñuy defar euh, cere ak soow ak soow ko joxe di ko joxe waaw bu ko naar yi nangut a jëli nañ koy joxante seen biir wala ñu koy def seen buntu place Mm-hmm. wala ñu koy def seen liggéeyukaay mm-hmm. te bu mënee di sedd moo gën buñ ko mm-hmm. defee dina ni am xaalis te dina ni ñëw te jafe-jafe yéen fa am dina jeex lii moom maa leen ko may ñu koy def chaque vendredi nan koy def suñ ko defee rek am jàmm am jàmm ndax naar yi bëgguluñ leen dama la seetaanoon ci beneen émission bi ma la jëlee ba pare beneen seen jël la ma gis nga fay wane ay mbirum a liggéey mbonaat boobu mi ngi sama kër dama ciy def lu bare bari lu bari mënu ma ko wax waaye daal ma moom asma dama ko ciy faj ba mu wér. asma asma moom du passé un xam asma dafa naqaree faj. waaye bu dee kim kim gën a sonal nag laa ci gën a a faj. Mm-hmm. waxuma nag ku kiris ñu ma koy indi. man soxla ma asma ko sonal waaw ndax mm-hmm. asma moom. a xam ne bu nit ki dee kiris soxla ma pour ko ndax bu ma jegee. Mm-hmm. day yeneen yu may def man. waaw. kon Mas Kylian Mbappé kii nee na asma da koy faj bu baax a baax a baax a baax. kon daal Morane noo ko def da nga tiimale Morane boola. non non daa am garab bu ma koy toggal. Mm-hmm. te munaat xam nga munaat day faj asma. waaye du munaat yëpp. Uh-huh. waaw du munaat yëpp. Uh-huh. Mandaw maa ngi koy nuyu borom mm-hmm. munaat yi. Mandaw daa munaat mi fu mu war a nekk di fa dund nga fekk ko fa jëlee ko pour muy doog a faj asma. pour muy doog a faj asma. Mm-hmm. waaye dafa dalay faj ba nga wér. waaw léegi ku nekk bitim réew ay kayit nag loo mën ci moom ay kayit. ku nekk ci ay kayit. waaw kuy lijjanti kayit dafa am ñaari affaire. mën naa laa jox sangat bu dee sa doole bëriwul. ma jox sangat. su fekkee nag mën nga jël man mm-hmm. xam nga sangat man naa la ko may waaye ay sarax mënu ma ko may du ma jël sama xaalis nga jëla ci génne li sarax loolu sama yëpp sax bëgg mm-hmm. sama bëgg ko waaye nag soo ma la mënee waxi sarax sarax ah. yet du ma la ko wax nga dem ko jox mm-hmm. yaay wut ku la ko génneel ma jox la tegtali nga dem ci àll ba nga def nga dem ci àll soo paree li ma soxla ci sarax bi man nee naa la béy béjjën dong laa ci soxla soxla ma ci leneen soo ñëwee ma defal waxuma la nag nga dem wutali ma ay béjjëni jàmm <laughs> waaw waaw ndax buñ waxee rek automatiquement rek dan may wax bay wi nga war a wut. béy wi nga war a wut waaw. Hmm. jeex na sëñ Fallou ñaan di ngeen li wax bu baax a baax wàllum kayit kon ku ci ñëw mën nga ci am lu kawe njort bu baax a baax a baax léegi kuy wut liggéey nag bëgg ko am. kuy liggéey wut liggéey wut ko gaaw am waaw bu fekkee waaw boobu mën naa la jox sunguf bi sunguf bi gaaw bi bu dee xeex sax léeg nga ñëw ma mer nii. nga ne ma dan maa wala damaa liggéey wala dan maa bëgg toroxal wala na xool xam na li ngay wax dëgg la ma comp jox la nga dem. Ah, ñaan léegi nag ku yëngutu ci wàllum xeetu juge magistrat euh, xeetu yooyu nga xam nit ñi dañuy jat wut si leen ñaan wut si leen ñoom itam ku ci soxla kaaraange loo ko mën a. waaw ñooñu moom ñoo gën a naqaree sàmm. waaw ndax ñooñu foo leen fekk dañ leen di dóor ay bagages. dañ leen di ay bagages. ñoom seen bopp sax xam nañ xam nañ ko waaw waaye ñoom moom boo leen di sampal ci béy ñuul laa koy def. béy wu ñuul kukk waaw dossier boo teg sa loxo kay moom di nga ko réglé. di nga ko réglé waaw. en tout cas nag ku ma koy jox dama lay wax leen maanaam bul jalgati dossier yow liggéeyal rek waaw liggéeyal rek liggéeyal rek waaw hmm. liggéey bi la tax a jóg yow liggéeyal hmm. waaye bul sukkandiwaat ci doole ji nga amaat di loraat ba pare hmm. ku la jiite waaw dina la bàyyi ci ginnaaw maam yow di nga ko bàyyi ci ginnaaw nga jiite ko maam ci kaw kay ngay dem moom ko ci kaw rek ngay dem ci kaw ngay dem masha léegi jëmmu hémorroïde nag moom nooy def ak moom sonal. hémorroïde moom laa lay wax boobu yooyu yëpp garab la rek. garab la moom mën naa la cee jox ay nàkk yoo xam ne si bu soobee yàlla boo ko jëlee. ñaari hmm. fan. ñaari fan nga xam ne naan nga garab goo mus sa naan. Hmm. waaw naan la ci jox ay naa ci boole yenn quelques garab yoo xam boo ko naanee danga xam ne mosoo naan garab yi. garab yi waaw ay hémorroïde ay ndoxu siti. waaw ah docteur Wade moom hémorroïde surtout ndoxu siti boo xam ne si day génn ci bopp wala xale boo xam ne si day am góom xale buy am góom moom sama gaamu kanel waaw cent point bi dong laa lay jox nga di ko raxasoo nga di ko raxase bopp bi quatre jours mu day wér ba pare bu paree day am karaw mhm. léegi footballeur bu bëgg kii dem ci club yu mag yi nag footballeur bu bëgg a dem ci footballeur yi neex entraîneur dem ci titulaire footballeur yi am naa ci bëgguma ci ñu bari bëgguma ci yor ñu bari ndax boo ci ñoom seen liggéey dafa métti dafa métti ndax heure yi nii jóg ak ak yeeg dafa am bu baree baree baree bari mhm. bëgg mën ngaa ñëw ma ñaanal la waaye bu dee samp moom téye la nga dénk ma sa bopp. li ma ci hmm. soxla bëriwul. moom naa kon nga fexe Sadio Mané jël championnat Angleterre Ballon d'Or bi. kii kii nu mu xam naa Sadio Mané Sadio Mané ay ponkal Sadio Mané ay ponkal la ko yor Sadio Mané li ñu li ma yor. waaw ñu ñi ko yor ci yooyu la ñuy liggéey dañ koo samp kenn mënu koo tee sem. kenn mënu demal moo tax boo gisee daanaka bëggul àdduna. bëggul àdduna. bëggul àdduna du yor dara. Hmm. ndax lim yor bëggul loolu. bëggul loolu maanaam koy defal moom bëggul loolu. Hmm. ah le roi Sané mën na goree nag jox ko. diis bëgg loolu Sadio Mané tey mën ngaa lal si jaara fii mu tëdd fi mu nelaw ndax buy nelaw xam ne ne ci sécurité lay nelaw. Mm-hmm. mooy tax du bëgg àdduna mënut a mottalikoo dara daal. waaw xam la. joueurs yi dañuy yor ay airport. waaw ñu kii di kii moom nag du tiit du tiit du ragal ndax xam na ne li li nga ko sampee ki ko sampal da ko waatal ci yàlla. Mm-hmm. xam na ne du sempee jël na championnat Allemagne ba pare parce que Bayern moo fa xanaa xanaa ñu aaye ko benn affaire rek mu di ko def maam ñu aaye ko loo xam ne si nañ ko lii bu ko def mu di ko def su waree su waree ñi koy liggéey rek mën naa non non yorul jikko warkat te ndax yooyoo tax dugg ci yooyu <laughs> kon Sadio Mané maa ngi ñëw Allemagne njëkk a yow émission ci Bayern maa ngi ñëw ànd ak ñoom Ousseynou lii yëpp ñëw ñu ba footballeur yi am na ci ñoo xam ne si maanaam mm. liggéey daf leen kon coupe du monde bi waxuma équipe bu Sénégal bi maanaam ñi nekk ci kaw ci kaw waaw équipe bi moom bëgguma ci wax dara bëggu ci wax waaw équipe bi moom hmm. nañ leen di ñaanal rek nañ leen di ñaanal rek jeex na kon dégg ngeen li wax bu baax a baax ci wàllum sport ko bëgg Zemark nag mën nga ci dara di dugal sax match Zemark dama déggoon dama lay samp rek dama lay sampal rek nga dem dama lay sampal rek nga dem hmm. loolu moo gën a gaaw man bëgguma nga ñëw suba nga may jox lii suba nga may jox lii ma di la lekk naan la di déedéet mm. ñëwal ma samp la bu la neexee bul joxee benn dërëm nekkal footballeur international na doon Sadio na doon keneen mm. boo ñëwee bul joxe dara bul joxe dara ma samp la nga xool soo demee deux semaines di nga mm. xam ba xam ki la samp man na wala mu mënu dootoo dem fenn de moom dootoo dem fenn déedéet macha allah waaw léegi euh, sëñ Fall ñaan dégg ngeen li mu wax ci sport basket nag lépp laa dugal ay pañe lépp lépp parce que moo am naa ñu ma ci ñaan lépp laa wax lépp li ma tële. waaw ah. xanaa tooñ tooñ daal laa mën. tooñ moom tële naa ko lool. tooñ ok loolu de baax na. tooñ moom mënuma ko. Hmm, ci wàllum faj beeg ñaan bi loo ci tële loo xam ne que lii. ku ku ku li ma waxut am lu bari lu ma waxut. Ah. laa tële. Ah. yi ma waxut. waaw tële naa ko de maanaam nit nit di ko naaw. ma jël nit di ko <laughs> naa ko. tële nga Macky Sall mais fi ne nii. te yor naa lu ko mën a wàccee suba suba suba waaye du ma ko def. doo ko def. Mm. kon am na lu ma tënk. ah dëgg daal yor ko. billaahi wallaahi Macky bu ma neexoon wàccee ko. te li ma koy defal. ci benn affaire boo xam ne si tey jii ñi ci àll bi kër goo dem mi ngi fa. yi ci àll kër yi sax amuñu waaye kër yi ci àll bi. Mm. kër goo dem loolu eh, eh, rab boobu fa. rab boobu ma nga <laughs> moom laay jël. a est-ce que du ginaar wala. ah en tout cas daal moom laa koy defal. waaw rab jël def ko. noonu boobu jël def ko waaye xam nga ah léegi mën nga folli même président. waaye ah, xam nga loolu tooñ la ndax man bu ma folli woon Macky Sall man tooguma. toogoo keneen laa koy toogal te loolu tooñ la comme kenn ku doon not réew mi. keneen ku doon fonto Macky Sall fi ne beneen président bu ko doon fonto wala nga di ko jaay affaire. waaw mu wut loolu. ginaar bu ñuul laa koy defee sax. Mm-hmm. ma wax ko mu leer. ginaar bu ñuul laa koy def fanweeri ginaar yu ñuul la may wutal. waaw ma dugg ci kër goo xam si kenn nekk fa. summeeku. di rendi. di wax li may wax di rendi di wax li may wax. Eh. chaque jour damay rendi di wax li may wax maanaam balaa fanweeri fanweeri moom kay da ngay bàyyi. Eh. wala nga dee. Eh. wala nga lafañ waaye faaw dara dal. <laughs> faaw dara xool fekkee nag koo xam ne dafa tooñ nit. da ngaa xam ne surtout nga tooñ sama mbokk ma xam ko nga xam kii danga koo tooñ. waaw bëy laay wut bëy. bu ñuul mm. dugg ci néeg. taxaw def li may def. Mm. rendi ko soo mm. paree jéggi ko maanaam bu doon da ngay dem. bu doon da nga da ngaa jóg di dem mhm. soo amee sens dëgg dëgg dëgg ba jàpp ma la ah. da ngay yanu say daal romb seen kër di dem eh. su ma eh. su moyen da ngay romb da yanu say daal romb seen kër di dem lii ma lay wax ñi ma dëkkal xam nañ ko ñii ma mës a ñëpp xam nañ ne am na lu nekk ci man am na lu may liggéey mën naa ko da di dama koo bàyyoon xam nga ab euh, ab ab ak nu ko waxee paan ak xandi nga teg ko di duy taar robinet bi muy xelli mm. mu xelli ba fees te tëjoo ko nu muy def day tuuru ci suuf ah bu tuuroo ci suuf ndox a fay nekk li may laal li ci suuf laay laal laalaguma la ci paan kon nga fees dell masha Allah yal kon nag kon mën dégg ay manifesté bu amoon nii ñaan ñu ko yàlla mais comme léeg-léeg ñu rey kenn ci tayeef wala loolu loolu maa ngi ciy wax dara maanaam réew mi waaw muy Sonko mu ma Sall waaw maanaam nan fexe mm. ba ba deret réew mi ba réew mi bañ a tàmm deret bañ a tàmm waaw hmm. mooy sama béjjën bi tey ji waaw ma di ko jox parfum hmm. suba mën naa koy jox deret suba hmm. mën naa koy jox soow suba mën naa koy jox leneen waaye man maa préféré loolu ma yooyu di jël parfum di ko def ndax samay njaboot yi may jege mooy tax yaa ngi dégg léegi seen nga réew mi bis bu demee ba tàmm deret nit nit mënatu koo yor te ay nit du dee ak ko mën a yor ay nit dañuy dee moo tax nay moytu ray bi waaw ñoom ñaan ñëpp mën nañoo jongante ci kaw terrain bi. Mhm. nit ñaa ngi ci kaw euh, tribune bi di seetaan. Mhm. ku man sa morom rek xam nga ko. waaw waaye mhm. nag nan moytu deret ju bari ji di tuur bu ko réew mi tàmmee. dee maanaam ku fi mën a toogati rek ay dee rek mooy. ndax réew mi loolu lay tàmm. loolu lay tàmm yàlla na ci te moom njiitu réew mi nag muy saraxe bu baax di ut ay nag di ko saraxe bu mu téye xaalis bi rek di ko lekk Macky Sall laay wax bu mu téye xaalis bi rek di ko <laughs> lekk ak waa këram yi su leen joxee sarax duñ ko génnee mm. bu leen joxee sarax duñ dem defi ko mm. loolu baax waaw na ñuy génnee sarax yi mm. sarax yi nu leen di wax na ñuy dem di ko génnee di ko génneel seen bopp sax nag di ko bañ a yët kenn mm-hmm. waaw ndax mën laa waxub sarax nga dem di ko loo keneen mu dem def ko ci poosam nan jël sarax yi di ko génnee di rendi yi deret ji tuuru mm-hmm. waaw moo gën deret nit di tuuru xool dëkk yi nga xam ne ñoo fi dàqa tuur deret kenn mm-hmm. leen jiitu mm-hmm. ku xeex ak ñoom daanu ku benn nit sax boo leen tooñee xam ne tooñ nga leen xoolal nag xam nga dëkk bi may wax ñu dem xam naa fa nga waxee jërëjëf kon euh, conseil mu joxe bu baax a baax a baax waxtu bi mi ngi ñuy dab léegi lan nga gis ne bëggoon nga ñu dugg ci te jotuñ ci dugg te loo xam maa ngi maa ngi maa ngi koy wax Salimata. Salimata na ko àggaleeg Macky Sall barki démb gis na Macky Sall. gis na Macky Sall ko àggaleeg moom na ko ko wax. Salimata Ndiaye waxal président Macky Sall. waaw muy def sarax yi. waaw doole am yërmande muy jël sarax yi di ko jox ñoo xam si man na koo génnee. mën nañ koo génne mu sës ci moom mu wóolu leen mu xam wala buñ koy def ñu koy filmer di ko ko wan. muy xam ne sarax yaa ngi génn. Mm-hmm. suñ ko deful rek coow dina am. coow dina am waaw. bu boobaa ñun ñëpp kenn du jariñoo réew mi. te dafee war a nekk Mm-hmm. bu paree jóg keneen ki war a ñëw toog toog. Mm-hmm. waaw jeex na kon yàlla yàlla def jàmm bu baax a baax. aar ñaanal Sonko suñu borom defal ko jàmm moom it bu baax a baax waaw ñoom ñëpp yàlla na am jàmm. waaw ñoom ñëpp man daal jàmm laay ñaan. jàmm ngay ñaan waaw muy Touba muy Tiwaawoon muy Casamance muy Ndiassane muy euh, catholique ñëpp pour laa yéeneel jàmm sama xol bi. te réew mi moom dina am jàmm. Mm-hmm. ku fi andiwul jàmm yaay am problème. di nga jël waaye réew loolu moom man maa kon yàlla yàlla def fu ñuy def dëgg wax dëgg ak am jàmm yéen a ngi tooñ léeg-léeg yenn sëriñ si de ci vaar bu nu dem ak yooyu ba naan sëriñ bi wax na lii billaahi à chaque fois ma leen ko ñi yor réew mi ak ñi ko bëgg yor ak ña ko yoroon kenn ku ne sa vaar di taxawaalu ci dëkk bi nii video nga waxoon lii tey nga koy weddi loolu nan ko moytu nan moytu gàcce daal gàcce wax dëgg yàlla dafa ëpp tey wax dëgg la Cheikh Bara Ndiaye doon wax rek naan euh, dajale 10 minutes yu mat di fen Euh, mu jub moom dem toj kaaba gaa ko gën a yomb. xam nga lu dul dëgg kenn mënu koo créer ba mu nuru dëgg na ni wax dëgg te koy def ngir yàlla te jàmm am parce que ñaar ñu jote rek ki tooñ xam na boppam ki tooñ xam na boppam ki na jéggulu ki tooñ jéggale mu jeex ñu jàll ci leneen Sénégal jëm kanam sëñ Fallou Niane léegi yow lan nga gis ne bëggoon nga ñu dugg ci dugg bayra bu saf sàpp ak kuy jaay bëgg a jaral. bayra waa yooyu moom yooyu déggoon na Cheikh bu nit ki amul xaalis na ñëw ma jox ko Mhm. na ñëw sama kër ma jox ko rendez mu ñëw toog. waaw ne ma damaa yurut. damaa yurut ma jël ci sunguf yi jox ko. ndax li may yor sunguf yi ma yor maa koy wutali sama bopp di ko defaral sama bopp. Mhm. yaa ngi dégg. dama ciy defar lu doy. pertu mhm. ma ci mën naa cee dimbali nit ñi. déw ma ci déw ma di ko jënd ci xaalis. ñëw di ko jaayaat. maa ko defar sama xam-xam. waaw li nga doon ci ndigg nag te ndigg sonal lu bari baa boobu ku ñëw dinañ ko am. a waaw boobu boobu sax moom da ma cee joxaale waat yeneen ak yeneen. yeneen waaw. ah borom secret daal dégg na émission bi xam ne war na ma dégg na ma waaw. moom daf maa am sax yeneen yu ma dolli tax ma yooyu daa baax. ndax li tax mu kontaanit it mooy. ji hmm. yërmande ji ma dawal neena ci émission bi. moo gën a hmm. tax mu may jox. kon daal képp ku am digg lu metti mën nga ci dara. muy ay fas ak yëpp. digg ak tànk ak yëpp. digg ak tànk ak bopp ak yëpp biir hmm. buy metti biir buy metti nag bu dee jigéen muy metti lu bari te bu mm-hmm. demee hôpital bu xoolee du gis mm-hmm. nay bàyyi naan soow nay bàyyi naan soow mooy jigéen ñi laa koy may nan bàyyi naan soow seex mm-hmm. euh, nag ma waxaat la lenn maanaam xam nga di wax naan nangam dama koy faj nangam dama koy faj nangam dama koy faj loolu lépp neex na waaye ngay wax nit ñi lan mooy tax loolu du leen dalit baax na lan mooy tax loolu du leen dalit waaw ndax feebar yu baree baree bari lekk gi ni lekk ba suur ci euh, fast food yi ba pare di jël lu tàng fast food yi na ñuy defar ay lee ay tee ay di ko teg ci seen fast food yi kun jaay xelil la nga naan xelil la nga naan waaw waaye jël nit mu toog lekk ceebu jën boo xam si xamoo loo ci def eh. nga pare jël kaasu si bu sedd guy jox ko ko fekk yaa ngi koy rey bu subaa du ñëw jëndaat bu feebaree nu muy ñëwee loolu day daaneel suñu économie waaw nit ñi bu buñ buñ guddi jotee ba nga lekk ba suur jëlal mm. sa tee tee yomb na tey kenn jënd ko ñu ngi koy eh. dugal ci dëkk bi te kenn jënd ko. waaw côté boobu tamit tey yi ni ñu wax nii. parce que te tey na ñuy jënd teew moringa bi. mooy saab saab bi. waaw moringa la tudd tee boobu bu ñu ko mënee di jënd ko naan. di ko naan baax waaw su fekkee jigéen boo xam day am poids jëru ngay dem ci fàllu ñaan sax di jënd ay ay garabam demal jënd moringa boobu di ko suy ci li ngay lekk di jeex. di jeex waaw. jeex na mais foofu tamit dinaa wax leen. di meer yi di lekk am diw yeet di ko lekk di tëdd ñu bàyyi ko. ñu bàyyi ko naan ay dama ko bëgg suñ toggee lu neex te mënoo ce ñàkk reer te daa guddi te nan la ko dencal waaw ñi nga dëkkal nan la may jàmm ubbal la ko dencal la ko buñ xëyee tàngalal la ko jox la ko nga lekk nga lekk waaw wala nga teel ko lekk waaw bu jàppalante wut biir ah. dañuy am problème rek dara du baax dara du baax jaaykatu was yi tamit ñu bañ a ëppal da ngay seen yow was ak limoog yow ndox kese ñuy jaay ay casse deux cent di ëppal Sénégal lu mu dugg ëpp tamit ngeen bàyyi xel lool kii dane fast food yi sax ñu koy maye Cheikh Max Cheikh Babis koy defar ñoom ah, koy defar loolu ngeen di gi boo fa demee bu la jaayee lekk dañ lay tegal tey gratuit nga di ko naan. nga di ko naan waaw. na ñuy jël lu tàng di ko naan ko amul tee nga xam ne amoo dara mm. ñooñu it leen laa leen wax mooy nañuy jël ndox bu tàng mm. soo demoon ci xew lekk fa ba suur ñëw amoo dara loo jënd lool mm. jëlal tee bii euh, kii ndox bu tàng nga tàngal ko ba nugg rek nga jël naan yow yaay gën le naan te junni yoon junni yoon ko defee rek nit ñi wér dootuñu fajooti sax jeex na ah léegi waxtu bi dab nañu looy tàggoo budul tàggatoo ak koy sant ak gërëm. waaw maa ngi dinaa gërëm sa benn xarit moom. Mm-hmm. Euh, bu tudd Nogay Ndiaye. Mm-hmm. Nogay Ndiaye. Mm-hmm. Euh, madame Silla. waaw Nogay Ndiaye madame Silla di lépp sëñ Fallou ñaan nekk ca. mi dëkk fee ca Campenal. Nogay Ndiaye madame Silla gërëm nga ko de. gërëm naa ko bu baax kontaan nga ci moom de moom moom bel nubien. Hmm? bel ah, nubien waaw. Nogay Ndiaye madame Silla ah. gërëm nga ko bu baax a baax xarit sëñ Fallou Niang di gërëm sama soxna sa soxna madame ak yaayam Salimata Ndiaye Salimata euh, Oumy Sarr Oumy Sarr gërëm nga ak euh, Sabiel Sabiel waa jëkkëram la mm-hmm. français la français la waaw mi ngi France waaye fan yi mi ngi ñëw na Sénégal maa ngi koy sant bu baax ak mm-hmm. sama benn xarit bu nekk euh, fële Libi mm-hmm. waaw ca or ba la nekk moom ak jamaa baag yooyu maa ngi koy gërëm ko sant ci xéewal yi may defal ko sant bu baax a baax te di ko ñaanal lépp lu mu jublu rek na fa yiw yàlla jëm amin amin waaw allah mm-hmm. gërëm nañ sëñ Fallou ñaan bu baax a baax gërëm na ko ci yoon bu mujj ci biir émission balaa boobu euh, gërëm nañ Ousseynou lii mm-hmm. Allemagne Ousseynou lii Allemagne moom ma ngay dem vacances dem na vacances ma ngi d'enfant tamit France dem na vacances mu ngi États-Unis sama xarit yaa ngi dem Sayer Fall dem na euh, ñëpp gërëm na leen baax a baax maa la jiite Grèce Fat Diop euh, Amérique moo sàmb Amérique euh, Ibou Dieye Espagne mm, Rougui Sow Espagne Rougui Sow Espagne euh, Fatou Ñaaña Fatou Ñaaña mu ngi mu ngi France moom tur bi dafa xaw a jafe tuuti Fatou Ñaaña ak euh, gërëm nañ ñi nga xam ne que dal bëgg nañ Tektal TV ba duñ ko yamaleeg lenn bu baax a baax. ak sëñ Baara dégg nga Cheikh Baara Ndiaye Cheikh Baara Ndiaye borom def gis ak soxnaam ak njabootama. ak waa kër gi yëpp bàyyoo kenn incha allah ak di nuyu sama kilifa gi nga xam ne bëggul koy wax turu. kilifa kilifa gi. waaw kilifa gu mag kilifa gi jarul xubar rek ah. waaw ba moom. bëggul koy wax tur bi waaw maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax. macha allah ñaanal Tektal TV baa a nga a Tektal TV baax a baax. ca ndax man lu ma paree sa client yi nga xam ne sonn na di daw. Mm-hmm. lu ma paree ci dabu leen def leen leen lu baax rek ndax. Mm-hmm. xam-xam fa nekkul woon rek. xam-xam fa nekkul waaye bu xam-xam ñëwee. Mm-hmm. ñoom ñëpp dinañ daw ñëwaat te dinañ daw ñëwaat incha allah bu kon daal da ngeen sëriñ bu leen di lor nee na lor gi mu leen di lor bu leen bañ a seetaanati jàpp ne ñëpp yam ngi ngi ni mel kiiwul moom dafa ñëw ku am mu dimbali la ku amul mu dimbali la man nag lii moo ma neex ci liggéey bu baax a baax a baax sëñ Fallou ñaan bindal numéro 77 108 70 32 77 108 70 32 75 631 86 86 75 631 86 86 sëñ Fallou ñaan nekk ci EMG nga dis ko soxla mu ci mën ci héritage couture nga dis ko soxla ci mën mu def ko leen ñu bàyyi yàlla mu xam tëlewul dara te mën na lépp gërëm nañ tamit ma euh, Massamba Diop ci équipe technique bi nekkoon ci euh, ak Samba xaritam Samba Amar gërëm nañ Fadel xaritam gërëm nañ tamit Petit Sow Gaw Sow moom xëy na amul xarit di wala mami ak mère Khady Ndiaye yaayam docteur Wade gërëm nañ ko mi mu Wade xaritam ak Mandaw ak yooyu waat Wade nekkoon ci équipe bi soxna May Diop ci réalisation gërëm nañ sëñ Fallou Mbacke Diop ak El Hadj Sulux Ndiak ak soxna Zeynab Diop ak Cheikh Tidiane ak nijaay Cheikhou Diakhaté soxna Faat Diakhaté ñëpp gërëm na leen xewal dikk loraange nag Tektal TV télé tollu ko fii kum neex nga abonné kum neex bul abonné njëriñ lan yor abonné nag doo ci fay dara bés furus bés close bi émission bu ñëw nga am ko domaine bii France 24 yebuñu ci BBC yebuñu ñoo ko téer suñu bopp xew dikk loraange nag